maa ngi fi ça va sëñ bi fii mooy Kër Massar. fii mooy dañuy jaay ndekki añ reer. waaw depuis trois ans ñu ngi jaay. depuis trois ans. waaw ñu ngi fi di jaay. lépp loo bëgg daal rek boo ñëwee fii ñu jox la ko. Ah, naka ngeen moom macha allah client yi rek xanaa ñu jéem a wax pël yi ñu jéem a wàññi xar yeeg yooyu noonu. pour ñëpp se barkel barkeelu daal. yow naka nga gisee client yi sa place yow. client yi kay ñu di jënd nice parce que tante ji mau mooy jaay lépp lu saf si dara ji rek moo koy jaay gars yi moom wër xale yi. waaw xale wër mooy suñu yaay ju baax bëgguñu rek bëgguñu baxal saalum ceebu kecax ceebu ñebe maafe domo daa suppu kanja yëpp yaa suppule lépp ci biir kay reer bi dañuy jaay tufe sandwich lépp daal lépp loo bëgg rek mooy fii ay supp ak yëpp yaay choisir yaay bañ daral Kër Massar en face station bi waaw ku ñëw mën nañaa gis ah. ñooñu fii waaw ok